sànq bi ñuy présenté mutuelle bi nañu 113 membres ngeen dooree ak ñaari tabouret ak 3 millions tey ngeen toll ci 600 millions ak siège bu yànj bi am 3000 bénéficiaires tollu ci 11000 membres am ay caisse yoo xam ne génn na Kébémer yéen a ngi ci gox yi ak goxaat loolu cuune mënu ko kon yéen bokk leen ci cuune yéen a ngi liggéey lu bokk ci jëmale koom réew mi kanam kooku nag bu leen place prix joxee ci première phase bi 100 million fas yéene leen joxaat yeneen cent cinquante millions ndax foog naa kees yi alal ji dugg na ci ba pare dama naan déwén am naa yàqin ne bu ñu ñëwee xanaa dañ koy def 300 rek ndax li ko waral mooy liggéey suñu réew mii buñ ko tabaxal suñu bopp keneen du jóge feneen di ñu ko tabaxal ñun ñi fi ne ñoo ko mën a tabax te ci loolu ngeen ne ndax exemple weesuwul exemple bi moom rekk doyoon na ci témoignage ak ci manifestation am sa projet gëm ko ci wàll bu mu mënti doon nga taxaw ci découragé woo def si sa fulla def si sa fayda ba tey mu permettre la suñu doom yi nekk ci daara yu mag yi di jàng bu ñu génnee ñoom tamit ñu am fu ñu dugg hmm. te du doon liggéeyu bureau rek ndax liggéeyu bureau rek baax na de mais du du fitti koom li nga xam ne moo mën a fitti koom mooy entrepreneuriat te entrepreneuriat nag ci yu mel nii lañ ko mën a gisee inclusion financière et sociale dafa nekk politique chère au président Macky Sall moo tax mu ne damay jël ministère jagleel ko microfinance mais dolli ci économie sociale solidaire bi nga xam ne lépp mi ngi aaju ci mutualité te mutualité mooy li ngeen am mooy meg fadeg ñàmb kon loolu politique boo xam ne ñun ministère dañ ciy taxaw jàpp ci ndax gis nañ ne li placer prix doon wut ci projet bi te mooy képp koo xam ne mën nañ la accompagner ba nga am projet bu mucc ayib nga bàyyi gaal yi bañ a dem bitim réew mais toog fii sa dëkk mën a daan sa doole loolu benn la mais beneen bi mooy booster le développement local te gis nañ tey bu fekkoon ne liggéey bi ngeen di def Kébémer fii rek la yem xëy na dina xaw a kii mais yéen a ngi dem ba Touba yéen a ngi dem ba feneen

le matériel de technologie, de l'information et de la communication. Parce que aussi, vous faites qu'on ait gestion transparente, vous faites qu'on ait gestion efficace, kon liggéey bi mën na sooxe yoyu yooyu dafa am jumtuwaay yoo xam ne mutuelle yi dañ ko wara logiciel yi ñuy utiliser ak équipement formation té lool lepp fonds d'impulsion da koy def